ne cameraman Dakaractu maa ko wax man pël bu rafet ragaluma loolu. kon nga ni ragaloo loolu. Bpactu Mouhamed dafa ne waaye Baol TV Kader dafa ne lépp fii lay xewee maa di ci wax waaw waaw Franc Boy Faye ñaari xale kenn mayul dara ku ci nekk nee na sa morom dama la may dara te loo ma yóbbu. ku nekk dem nga say mbokk ñu conseil la. Paul daa mel ne affaire bi du yomb. déedéet war ta yomb. Franc peese na mais bi ba day jeex moom loo ci mënta dégg day jeex de. day jeex. naxaat nañ ko pël. waaw waaw. naxaat nañ ko bii mu bii doon du rëcc. bii moom doo ma mu rëcc. bii du rëcc. Faye mi ndaanaan la de. rëccaat la Paul. Paul Boy Faye rëccaat na. Boy Faye rëccaat na. amateur yi kontaan nañ. laay lay la laa rëccaat na. man foogoon naa Franc ku wër ndomba jeex na. ndekete ndekete Boy Faye daa daa mën a féemu. moo jaaxal ñëpp. tàllal ne le dimbale ñu baalal ñu baalal ñu rek bu bu final bi jeexee nga fecc nga def lu la sax maa la waay waay buur dégg naa instant bi tey wàcc na ba zéro degré. ba zéro degré. ba zéro degré. zéro maa la wax li man buur. ay waay waay buur. dina dem dina dem pël bëggu ta dem waaye dina dem. dana dem bu fànn nañ ko pël. Fane Pël lañ def gis naa Babacar waa